ñoom dugg nañ ci ñoom tam loo leen di wax nañ ko wiire ci sama doom ñu wiire ko ci sa doom gis na doomam gis na doomam ginnaaw faatu la tudd gis na ko ñi nga xamante ni jàppoon nañ ne Titi mooy sa doom nañu jàpp ne léegi yaa ngi jotoon teg sa doom Fatou Tine ak Khady jeex na jeex na Khady Khady Khady Khady rakk rakk rakk Fatou daal maa ngi maa ngi diggante ak ñoom waaw bi keroog keroog bi may wax ci guddi comme li biig la biig la bi may wax booba Khady laa doon jokkoon booba xadi nga doon jokkool. Mhm. d' accord. ñu naan defoon naa mhm. seen yaay yaa ma faal. moom yaa ngi koy dégg. dafa feebar. sama doom laa laaj fi ma moom. yow kay yow kay yow kay loolu leer na nañ nañ ma ne bu bokkee moom mu tur nag moom mën sama baay loolu man lu ma ci def lu ma ko wax sama doom la wax waaw sama la àndaloon dem mhm. bu du bu ma àndut moom bu fekkee du du du ma bàyyam mënu ma ànd ak mhm. waaw bu fekkee ne du ma bàyyam itam mënu ma ko mënu ma ko mënu mu ñëw fii mhm. waaw léegi loolu dafa yomba leeral xam nga moom ba léegi nii moom dugalu la fenn de man ba léegi nii jéego yi ma ci def ba nga jotanteeg say doom Mauritanie. dañuy topp sama sama sama taawa ba ba gis doom. waaw. ah man la neexoon du la ci fekk. Mhm. ndax man nee naa ba nee naa la dootuma dootuma jaar tool sax. Mhm. affaire titi moom moom teg nga ko ne le. naa ko le bu soobee yàlla ci tudd dootuma ko wax dara dara dara dara dara li lay ndax xam nga maanaam sama doom a la tudd. faj mhm. naa ko laaj. d'accord. a ginnaaw du moom. Mhm. bu ko neexee ni du man a ginnaaw maa ngi jëlante samay doom nag bu ko neexee. kon leer la na ne du titi mi. waaw fi ma ma déggagu. Hmm. ñee la. sa frère ma ngi fay waaj a dem. dafay waaj a dem Moussa. dafay waaj a dem Moussa mhm. Tine allah. maa ngi gërëm maa ngi gërëm Mbaye Mbaye Mbaye Thiam daal. Mhm. waaw di ko ñaanal yàlla guddalu fanam. di ko ñaanal mu am rajo boppam. Mm-hmm. waaw waaye nag léeg-léeg mu ko ci dëkk d' moom moom moom mi topp sama gaaw ba gis samay doom daal. Mm-hmm. war naa koo delloo njukkal. Mm-hmm.